waa këram si waa këram la yable ndax moom mii toog daa bokk si soxna Daba Mbàkke moom sëñ daa daayira bii mu muy ñoo xam ni bu leen soxna si gisee xolum day sedd guy dana yëg ni soxna Daba am nay gan yoo xam ni da leen a boole si boppam ndax nee na saa bu ma gëstoo seen soppee sama xol day sedd kon nag loolu li ko waral moom mii moo ko jiite wax ji mu wax nag yóbbante ko yónni ko soxna Mbène Ndiaye mii yàlla nañ ci bokk si barkeb Serigne Touba te am nañ yaakaar fii nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall fi la daan toggandogu yóbbu sëñ Bamba ëtt bii ñu toog fii la Cheikh Ibrahima daan jóge fii jël nii ba tumburngal wuti wuti nag kër Cheikh Mamadou Bassir ga sëñ Bamba kon ñu tey lin am dafa neex dafa neex lin am dafa riche sëñ am sa yàlla na la yàlla defal jàmm sëñ sa yàlla na la yàlla defal jàmm Mbàkke sa rakk ju baax ji si dëkk bi sëñ Baara Jaxate Mbàkke yar bi ak teggin nii ak nungu lool ndax ñun diggante soxna Daba Mbàkke moom Cheikh mu Moussa ak soxna Daba mbakke moom suñ Fallu sang bi danaan xool ba si ne sama waajur la du sama mag soxna Daba yàlla na yàlla yokki leeram Mbàkke xajoon na sëkk si dëkk bi waaye nag Mbàkke dañuy ñaan yàlla may la fanu gudd ak wér gi yaram ci barkeb Serigne Touba ndax am nañ yëg-yëg barki démb rek wax naa ko bi ma ñëwee ànd ak monsieur le maire député maire Malick Fall fekk la nga toog man la Mbàkke ñaanalal na ko waaye ñaan googu dañuy wëlbatikuwaat Diko ko sakkuwaat sa jam sa jëmm ji rek nga ñaanal nu am jam réew am jam ndax bu réew mi jam. jàmm jam kon na réew am jam avant tout ñu amaat sunu sang yi sama ñaari soxna daba yi nag yàgg fi tëw yër ya tama yàgg ak ñoom buri yow lii rekk laa amoon lu ma lay wax yàlla na la yàlla defal jàmm defal nu jàmm bàjjan xam naa ne nag ah faal waaw mi ngoog eh ndeysaan ree na barke borom Tuubaa ku mu ree nga ba da ngay fekk déwén looloo tax man soxna Daba Mbacke boo xam dama naa ko dangay ngay ree rek ma ma kontaan jërëjëf jërëjëf Mbacke Fall kon ñu sëñ Baye Mbaye waaw bisimilahi rahmaani rahim barkeb Cheikhul Khadim barkeb mam Thierno Ibra Faty barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall min nekk ci pàkkam mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalul sëriñ bi sëriñ bi ne ginnaaw bu siyaaree mbokk boppam yii mu fi fekk mi ngi ciy teg Daba Fall mii nga xam ne du ne bu doon góor ndax macha allah fam ne foofa la war a ne sëñ Fallou wax nga ko léegi barab bii ku fi ñëw sa xel war naa dal ndax fii la maam Cheikh Ibrahima Fall daan waaje jëm ca sangam bu tedd ba ca loolee dakkul ba léegi ca du dakk ca macha allah yomal xiyaam yàlla na yéexit noonee lay demee kon na suñ xel dal ndax sëñ Abdou Lahad mas na ne amul benn taalibe murit bu ñëw fii di ma wax yomal xiyaam daan ne noonee seen xel dale noonee lay demee. kon nag ñun nañ gën a góorlu rek ca takkaat laxasaay gi ca xam ne ñun amunu jot amunu bëgg amunu bañ sëriñ bi lan nu joxoñ nan yem ci sëñ bi ku tedd ki nag waxoon na ne jamono ngi ñëw muy axaru samaan dinaa leen digal ñaar fàggul leen ci ñaar nee dee leen roote ci man di sotti ci man ma fàggul leen fi ngeen di roote du jeex fi ngeen di sotti du fees jamono ji nag rëb na waane ñun li nam la ñëppi wër buñ ko kenn xagn nanti am fu la way ci deng señ bamba la ñuy wër njariñ lu ant ak lor mom dong ko am sa nafsin bila dararin señ bi nak yow yom na wax ndax lim wax da ko bind bind na jëf na wax na nan yam ci mom di tambalé ci mom di yam ci mom ki fi ñew nak muy am sa mbacké mom señ Amad Fall nar mom Cheikh Amadou Lamine bara mom señ Touba mom yom na wone machallah sëñ Amsa Mbàkke moom soxna Daba moom sëñ Modou Moustapha sëñ Ahmed sëñ Amsa Mbàkke moom soxna Faat Cerno moom maam Cerno Ibra Faati seet si kan soxna Daba Faal moom Cheikh Ibrahima maam Cheikh Ibrahima Faal te nag yëf dafa amaat leneen lu ci ne ndax waajuram mu tedd ba Cheikh Fall Baye góor ku ne xamoon na ko ak sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma te bu nee sëñ Cheikh daaru xuddoos kon nag soxna si na sa xel dal sëñ bi nee na bég na lool ca nee na màggal gii yàlla bu mu nekk sa mujjël gi màggal waaw nee na yàlla na nga ko yàgg def nu yàgg laa guy si ca bu ñëw dàq ren ndax sëñ Tuubaa moo ne sama tey ju na gàcceel na sama démb ñoo ngi jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp yàlla nañ yàlla boole dimbali waaye ni mu lay ñaanal rek ne day sàkku ci ñaan ndax xam na ne sëtub Cheikh Ibra nga ca fa nga nekk nga war a ne ñoo ngi balu ñëpp àq di baal ñëpp yàlla nañ yàlla boole jéggal soxna Daba moom sëñ Modou Moustapha ne soxna Daba Fall mi ne da wax man la la Cheikh Fall bàyyi góor tudde sëñ Cheikh mu ngoog kon nag. ah mi ngi nii toog. asalaamaaleykum wa rahmatulah. taxaan laaw barakaatu. ñoo ngi leen di siyaare bu baax. di nuyu bu baaxit nag di leen baalu àq di ñaan yàlla suñu borom nu jéggal di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla may ko yàggu ànd ak wér defal ko sëriñ Amdi Moustapha Fall ak mboolem njabootu maam Cheikh Rayma Fall di ziare mboolem ku teew jotaay bi. waxtu wi ñu wax ak yéen nag jëmm ji toog di bàyyi Modou Ndiaye daayira moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde ma nga xam ne fu mu teew mën na fa teewal Serigne bi ñu ngi koy jaare baax mu ànd ak sëñ juuf moom suñu Baye Tedd Diouf Baye Tedd Diouf moom sëñ Mbacke Diouf maam Cheikh ma Fall moom Serigne Touba ndax kër gi ñu toog Serigne Touba mosu fee yónni mukk nit te boole koog jëmmi maami sëñ Mbacke mi toog muy Baye Mbacke Diouf ku Serigne Touba mos a yónni ci maam Cheikh fii. day woo maam Mbacke Dione ko àndal ak moom ak maam Malick Ndiaye ñu baax na soxna Roqaya Fall mii toog moom Serigne Cheikh Fall Baye góor moom bàggan soxna Fall Mbenda moom sëñ Modou Mbendam Cheikh Ibra nga xam ne kon joor la ci Cheikh Ibra waaye càmmoñ la ci maam Cheikh Ibra ndax da cee ndeyu bàyyu ci yenn saa yi ma ne Soxna Daba burutoon Serigne Cheikh Farit ab sang la ndax seen muur mel nday maamam waajur mu it Serigne Cheikh Fall Baye góor pàkk bii ñu ne nga xam ne daanaka lépp yoonu murit fii la xewe ñu baree bare bare bari maam Cheikh defar leen fii waaye it fii la maam Cheikh Ibrahima Fall gonte demoon ci ngërëmu yàlla barab bii toog la maam Cheikh Ibra daan togge ndogu yi fii daan ko yóbbul Serigne Touba bi nga xamee ne mag ñi dem nañ kër gu mag del siwaat wax maam Cheikh ne ko nun defaa dañoo dégg ne Serigne Touba bind na xasida goo xam ne boo tawatee boo ko jàngee mu saafara la mu ne tekk ba yàgg mu jóg boot loxo mi tedd ya dox ba sori dëppaat daan ne njaay roqee lu ma dégg ngeen di wax mu ne ko Serigne Touba bind na xasida goo xam ne dañ ko naa matlabu shifa bu nee nañ boo tawatee boo ko jàngee wér maam Sarafal ne leen moom dey bind ko war nay bind waaye man de saxat si ngi togge sama ndog yi kum dugg nga wér waxtu yooyu it la maam Sarafal bënn lu woon teen bii nga jàkkaaroon bi ko bënnee ba noppi ndox mi naqari teen bii amoon na garabu kóoni goo xam ne daa dendoon ak teen bi mag ngi dikk na ko ndox ma de faal dafa neexut mu daane waaw ndoxum kóoni gi ak ndoxum teen mi mu dàq bàyyi sa njaay roqee na ko ndoxum kóoni ga dàq de mu ne ko sopp naa sama teen bi kóoni daan ne mat la bu ci faya ngoog boo ko naanee wér boo ko jegee wér pàkk bi it fi la Cheikh wax ne mboolee malayka yàlla yinu gërëm ci nguurug yàlla gi guddi gune fii la ñuy fanaan ci kër gi daana wax ne sëriñ Ndiaye Baye mu ne Fall mu ne Ndiaye Roqee mu ne Fall doom su ma rax maasee gone gu ndaw gore gi sama kër gi na ko war maan malayka la kër gi la mag ñi dikk ne Serigne Touba wax maam Cheikh dafa ko Serigne Touba nee na jaamu na yàlla kër gu mag ba wenn pepp suuf wu ne. taxaw a jëmmi alxuraan fii nag faa loo fi wax maam Cheikh ne sama kër gi bu ci ab kal duggee ab kalbu bu duggee ci kër gi joggi suuf si dem ci àll ba joggi ak ñax ñax ga am xar lekk ko bu nga reyee xaan ma ku ko lekk texe kër gi la maam Cheikh Rafa toog ci biir kër gi ba yàgg mu ne sëriñ Saliou Fall man de sëñ Bamba xetam damay xeeñ ci kër gi man de Serigne Touba may xeeñ ci kër gi maam Saliou Fall ne ko ah, ñu ne gisuñu dara de ne doom mi ngi xeeñ de xoolal leen ma. mag ñi génn xool ba sonn gisuñu dara mag ñi duggaat ci biir ne ko ah, faal dara dikkul ma mi ngi xeeñ ne bëreet waaxu génn ci bunt bii mag ñi topp ko mu waaxu wuti raay ba bi mu dëkkee bay jub raay bi la seen Sëriñ Tuubaa bokk benn téereb Alxuraan sol daldi karbat di dëgg ndànk wut ci ko maam Cheikh Rafal defeenu di mu defee noonu sëñ Tuubaa dëkk ba tiim ko mu siggi ne ko doom lu wànqee doo noor doom lu wànqee doo noor boroom Tuubaa ne ko Ibra Faal yaa gën a xam li wànqee doo noor yàlla xamal na ma ne juróom-ñeent fukki fan moo ma dese ci àdduna damay dem yow nag loolu nga yëg bëgg a dem te soo ma njëkkee dem lii ñu tàmbali woon man ak yow dana fay te ba keroogee jaam ñëpp ñaari lañ jëm nag Ibrahima toogal ma jiitu la nga jubbante yoon wi defar ko teg ñëpp ci njub doon ma fekk si mu ne ah sëñ Bamba tere na ma doom nee na ma toog daane Saliou Fall sëñ Bamba faatu na ci nopp daa diis. mën na ko njëkk a dem bi Serigne Touba gi dem wanag wii ci ginnaaw la fekk Cheikh Rafal ndax maam Cheikh Rafal maam seeni bu Njaay njare ko jur maam Seyni bu Njaay njare maam Sona Bala maam Njaay waajuram maam Sayar Maram jur ko boo ne Seyni bu Njaay nag dem Jolof ne Alburi ne Samba Lawbe ne Njaajaan Njaay ne Abo Dërdaay Cheikh Ibra Fall kër ndayam seen naa la waaye kër baayam seen Omar la day sérif kër nday doon sérif kër baay fii la waxee ne góor yàlla gu ngeen dégg yàlla gërëm ko lam def ba am ngërëm maa ko fii la waxee ne xareb badar ba mu taree ba tar yaaram mbay mu ne faal mu ne Cheikh Ndiaye doom xareb badar ba mu taree ba tar maa boot njool màkk takk bu mu dëgër wàcce sama njañ li toog ca gilam gi xare badar fii la Cheikh Ibra waxee ne bu na yeggee siraat nit ak ginneeg maleeka teew yaaram mbay mu ne faal mu ne boobaa na su ma génnul góor ñëpp woddu kër gi la maam Cheikh Ibra waxe ne bu nu yeggee fa nga xam ne koo na yaba mun a du man doom yéen ñëpp ne le ma yawa kër gi la waxe ne ndokk bi nga xamee ne sama joxoñ bi moyut ndax sëñ Bamba maa ko na yawa ba muy moom ma jël sama lépp jox ko ak sama njaboot baay moodu sa waaga Cheikh Ibra saa boo déggee Sëñ Tuubaa woolu ko am na ku mu bëgg a jubbanti am na ku mu bëgg a jubbanti maami sëriñ bii toog maam Mbàkke Diouf Mamba ke Mbacke Diouf maami sëriñ bii toog Baye Tedd Diouf waajuram moo Mamba ke ne nena, maam Mbacke Diouf nee Cheikh Ibra masa tawat tawat di metti nee na ba yegg ci maam Saliou Fall jëli ngegenaay rofal ko Cheikh bu tooqee mu tourné ko roof benn ngegenaay nee na Serigne Touba woolu maam juuf Diouf maami Serigne bi toog boole ko maam Malick Ndiaye ne leen dem leen seetale ma Cheikh Ibra Fall waaye nag joxu leen saafara joxu leen dara daf leen ne dem leen seetale ma Cheikh Ibra Fall ñoom maam Mbacke Diouf dugg ci biir kër gi jàll ca wana wi maam Saliou Fall yóbbu leen ci maam Cheikh Ibra bi Baye Mbacke Diouf ne tëll maam Cheikh Ibra rocc ngeeganaa yi sànni ne ko Mbacke Diouf ana sama seriñ ba mu ne ko ma nga fa mu ne ko lu leen wax mu ne ko daf neno dem leen seetama Cheikh Ibra Fall mu ne ko leen jox mu ne ko dara mu ne ko ankay dafa xam ne bu leen joxee saafara ngeen naan ko sëñ Bamba def ko ci seeni bët ngeen xool moo wér loolu fii la xewe maam Cheikh Ibrahima am na fi gan ak naar fii ci kër gi naar bi tawat maam Cheikh ne am ganuk naar daal mu bëgg la faatoo ci kër gi gàcce la naa dem sëñ Touba ñaanal ko ndax mu wér maam Cheikh dem ke sëñ Touba. na man ne Mbàkke Mbàkke dama am ganu naar te daa feebar ba sonn ñaan ci ndax mu wér borom Tuubaa jërëb këll def ci ndox jox ko Cheikh Ibra ne ko soo demee nga jox ko naar ba bu ko naanee wér maam Cheikh Ibra waaxu ba ci buntu kër gi na gisub taxaw daa daa ne doom sëñ Bamba jox lam ndox nga koy joxam naar ndax teggin la daan doom ñépp a wopp daal di sukk naan ndox ba mu jeex mu ne ba yeboo ba yeboo dee waaye sëñ Bamba am ndoxam laaru jox kenn bi mu duggee ci biir néeg bi xool naar bi naar bi wér loolu fii la kër gi mi ngi ko sanc 1915. kër gi soxna Astufa soxna Njaay Njare moo fu njëkk feeñ jamono maam Seyni bu Njaay Njare kër gi la wàccub liggéey am na naar boo xam ne daa ñëw seet ci Serigne Touba fii ci kër gu mag nuyoo ba nopp na ko sa yéefar bi day laa bëgg a xam mu ne ko kana ma ne ko ki nga xam ne du julli di woor mu woo Baye Mbacke Diouf maami maami sëriñ bi toog ne ko àndal maag naar bi dem ci Cheikh Ibra te boo demee nekk mu joxam naar bi juróom-ñaar fukki dërëm te boobu danga bay nawet ba mu jee du am fukki dërëm naar bi ñëw ci kër gi nuyoog maam Cheikh Ibra ba mu nuyoo ba noppi yegg suuf. mu ne ko Mbacke Diouf sëñ Bamba lu mu wax mu ne ko nee na nga joxal ko naar bi juróom-ñaar fukk mu ne yaaram mbay lalal ma kaala waxtu wu daanu jox ko juróom-ñaar fukk ba kër ak kër gii bi nga liggéey jumaay njaarim booba jamono bi metti na xaalis amut dara mun tam borom Touba ne dañuy teg xeeru jumaay njaarim mag ñi ne Cheikh Ibra Fall day mënuñu lu mu seq ak ñun man ñu nañ bind leetar boo xam ne lañ koy laaj du ko man suñ ko ko joxee su ko defut aw sa mbooy ñu bind leetar def ko juróom-ñaar fukki dërëm ñu ne tuuti na de yokkaat ko nu yokkaat fanweer muy téeméer nu jox maam Matar Sylla maam Mbacke Diouf maam Malick Ndiaye ñoo ko indi fii bi nga dëkkee jox ko maam Cheikh Rafal mu ne ko Mbacke Diouf ma ne xaw ma mbind sëñ Bamba laa xam Mbacke Diouf luñ ma laaj mu ne ko juróom mu ne ko téeméer. téeméeri dërëm ca booba temps mu ne ko mbaqe Diouf xeem nañ ma de xanaa xamu nga ne ma yoonu murit daan ne Seex Ñang jëlal kees gee Njaay Roqee jëlal kees gee Modou loo jëlal kees gee nee doom kaay leen dem ba nu yeggee fekk Serigne Touba toog maam Cheikh nuyoo ba noppi ne maam Thierno ñaata lay ma laaj mu ne ko téeméer mu ne Cheikh Niang indi sa kees maam Cheikh Niang sotti keesam ñu compté ko muy téeméeri dërëmi ngordu mu ne ku sukk jébbulu maa la joxel téeméer bii ndax maa ne mooma ba muy moom kon kuñ sas maa la war a joxeel daana njaay doo koy indi sa kees mu sotti keesam muy téeméer mu ne am na ñoo xam ne jébbalu waroon na leen teñ lànk maa na joxe téeméer boobu daane mëtloo andi sa kees mu andi mooy sotti leen sotti mu ne wàññi leen nu wàññi ko muy téeméer mu ne am na muurit yoo xam ne juddoogunu te bu ñëwoon joxe war leen maa na joxe téeméer boobu moo ñu ñuy toog moo ñun ñuy toog maa ngi ne ko yow ana saw sas mu ne Saliou Fall Matloo Masama Ndiaye Njare Ndiaye Roqaya Madou Gueye Maro Madou Gueye Dem sëñ Mor Ndiim Amar Ba kaay leen gunge ma Gébbu ba Cheikh Ibrahima demee Gébbu dafa takk fanweeri gileem ak ñeent. gileem gu sëf ab junni gileem gu sëf ab junni mu jël maam ma Sèye teg ca génn gileem gi jël Serigne Mor Talla Fall teg ca génn gileem gi ànd ak mag ña dàq gileem yëpp dikk jox ko Sëñ Tuubaa addiya te booba jumaay njaareem budget bi junni la ak ñaar téeméer ak juróomi dërëm Cheikh Ibra joxe fanweeri junni ak ñeent. ak ñetti téeméeri dërëmi ngordo ak doomam akub taalibeem biñ gasee fondation bi ba noppi Baye Modou ba tooyal ciment bi ba noppi maam Bambi Diop am doom maam Bambi am doom muy doom ju góor ñu ne Cheikh Ibra Fall soxna Bambi Diop sa soxna sa dafa am doom ju góor mu ne liggéeyam sëñ Bamba doomi Cheikh Fall juddu ca nañ ko booleeg semence nga sottiwaale kon bu ñuy wax njébbal Cheikh Fall la jébbalu moom rek a jébbalu jërëjëf mu ne liggéeyam sëñ Bamba doomi Cheikh Fall juddu ci nañ ko booleeg semence nga sottiwaale maam Mbay saar moo këf doom nga daw ak moom. ba mu jàllee bañ kuule ba noppi la ko ne Mbaye Sarr naa la ko maam Mbaye Sarr moomu maamul Matar Ndiaye Bambi maam Fat Fall Bambi ñoo bokk sunu Bambi Diop Fat Fall Bambi moo gis sëñ Talla Modou Mbenda sëñ Mbacke Modou Mbenda sëñ Ablaye bañ a aadama njee kooku rek a jébul Cheikh Ibra waaye soxna Daba sa waajur Serigne Cheikh Fall Baye góor moo waxoo ne bu ma dul Cheikh Ibra Cheikh Ibra amut jàmbaar jooju waxuma la deret ci Cheikh Fall ji moom de waaye su ko turu yàlla faye aj na sépp xaj. Hmm? bu ko tur yàlla fayee ñépp xaj sëriñ Cheikh Fall moomu nag nga xam ne maamam maam Cheikh Ibra Fall moo ko tuddal boppam moo ko tuddal boppam ba noppi ne summiku naa ci moom mooy man te moom maa moom nooyam doole sëriñ Cheikh Fall daw romb ko mu ne doom diir bu gàtt muy bàyyim yëpp waaw dir bu gat domi bayam ñep fi ci kër gi le kon bis bi soxna Roqee fal mi tok gaynde la de gaynde amul gor ak jigen jaan amul jaan ju góor ak ju jigéen ju la ci màtt da nga luggi taxawaay bii mu taxaw munta yaafuus munta yokkat du ragal ndax ñëpp a dégg Modou Yaay Mbenda Fall jàmbaari carrière maamam sëñ Modou mbend moo yóbbu raay bi Touba. bi nga dikkee ba Sambé buñ tegee raay bi bu guddee gi yi tegi ko Cheikh Moussa Fall Cheikh Moussa Mbacke woo ko ne ko yoon wi sa yoonu baaya Guinée yi nekk Sambé dañuy teggi raay bi mu yónnee njakkal ma jëy sa kër maam woo sëñ Modou Mbène maamam ba sëñ Modou Mbène Fall dikkee Cheikh Moussa Fall ne ko daa Mbène raayam sëñ Bamba bi daa war a yegg Touba te sambela la gàllankoore sëñ Modou Mbène Fall solu manto dalli bot war aw ngelembu ak gaasi salaama ba mu yeggee sambela la wàcc dugg ca xàmb ya buddi ya toj njaq ya dagg jaan ja daagi taxaw ne teg leen raay bi mu yegg Tuubaa fii ba ñuy teg sarat gàcc ko jaxaan ma nit ak jinne malaykay teew dootu yàqu sa maam sëñ Mbenda moo yóbbu Cheikh Rafal Touba sa maam sëñ Mbenda kër gii la génn fekk Cheikh Ibra Fall bëgg safoor mënu ko am mu ne ko man da bàyyi soo ma yéegalee ma dawal mu ne ko daam benn foo jànge dawal mu ne ko yow bàyyi koo yéegal mu dawal Cheikh Rafal tey ci mbagg yi teg ko ci coussin bi sëñ moo doon taal génn ci pénc mii jaar ci kaw dongo yi jaar ci kaw dongo yi maam moom mi toog kër Cheikh gépp dagg ne moo benn faa rey na gone ya sëñ moo doon benn wàcc ku fekk nga tëdd jàpp sa mbagg yëkkati ci la ne la doxal tëri ba gone ya jeex sa maam sëñ Modou Mbenda moom la Cheikh Ibra Fall ne ko Moodu Mbenda Fall na nga fexe ba maag sëñ Bamba bu nu njëkk a jóg mu ne ko bàyyi lu tax mu ne ko maag sëñ Bamba boo nu njëkkee jóg du ngi ràmmu mu ne ko ah ndem xam naa ko dee bàyyi maa lay njëkk a jóg yaag señ Bamba borom Touba téye ci loxoom ba ca Serigne Touba na ko waxal ci Moodu Mbenda Fall ndax nee na. bu jaam ñépp faatoo man ak yow moo ni njëkk a jóg te bu keroogee doo ramu du ma ramu sëñ Tuubaa ko demal uufal ma ko bu naree jóg nga téye ko moo tax barabu maamam sëñ Muudu Mbend léeg boo fa duggee fekk barab bi toll nii yenn saay boo duggee fekk mu toll nii kon day fudd sa maam sëñ Muudu Mbend moo waxoon na lépp lu sama baay Cheikh Fall man man naa fukkam daana waaye nag saabu seraat génnee gàccaxoo jaxan na ma ma noppal sama baay noppal suñu Bàmba kon nag bu juree bàggee soxna Fall benn mu meññ la boo defee lu mel nii wàcc na ñàkk koo def kay mooy sunu gàcce waaye yow gàccee looñu yow gàccee looñu ndax sëriñ day gàcceel ay taalibeem waaye soxna Daba kenn ku nekk nun defe nga ne yow rekk la bëgg defe nga ne yow rekk la jàpp defe nga ne yow rekk la yëg woyof tooyu nag teg ci barki démb rek ti mujj Baye Modou daa ñëw seet sama ci résidence ba ma ne ko damaa bëgguñ ànd xuuru Mbàkke man ak yow ca liggéey ba mu ne ma bisimilah. naagu tàng jër man ak moom lañ départ dem xuru mbàkke ba ñuy daane miir ba moo njëkk a jël martum dóor moom mii kon loolu woyof te la barkeb sëriñ Cheikh Fall ba yàlla na wàcc yow barkeb sëriñ Muudu Mbend Fall ba yàlla na wàcc yow léegi dama ne la lii nga def du saayir ndax tey alxames la alxames la maam Cheikh Ibra Fall sañ ci kër gi maam Saliou Fall dikk fii Mirina Fall ne ko sëñ Bamba ne nu wut kër mu ne ko saali Fall sëñ Bamba wut loowuma kër bor la may fayloo mu ne ko nee na nañ wut ci kër mu ne ko saali Fall sëñ Bamba wut loowuma kër bor la may fayloo daa di woo maam Cheikh ñang rakki maam ba ñang ne ko duggoo ci sama wanag wi xool ba xam gileem a nga fa maam Cheikh ñang dugg ca wanag wa fekk fa gileem gu weex mu ne ko faal génn gileem moo fa ne te gu weex la mu ne ko andi leen ma gileem gi fii ci Médina Fall ñu andi gileem ga maam Cheikh Ibra war gileem gi ñaan ci jël loxoom tekki bopp bi. ne maam Saliou Fall yow ak Atoumane Diop topp leen gileem gi bu leen ko laal fu mu sukk mooy kër ga. gileem giy dox di dox di dox di dox ba ci néegam Cheikh Fall bii mu sukk mu ne Saliou Fall ba njool màkkay dem Madina gileem gaa ko won kër bor booba lañ mën a fayloo fay naa ko mu tombeeg alxames kon tey bu ñaa ngi dee alxames nga def lu mel nii danga ngaa feeñal démb yàlla na barke maam Seydi bu Njaa Njere wàcc ci yow bàgge soxna it yàlla bàyyi ko fi mu wér Sëñ Mbàkke ñu ne baax yàlla na taxawaay bi yàgg yow sunu xale nga suñu wóllëre nga bàyyi tedd ku am yar teem teggin te fonk ñëpp. ku yëg doomu aadama la sëñ Mbàkke Juuf yal na yàlla fayal ñu ko faama ngi leen siyaare baax yéen ñëpp di ñaan rek ku fi teew nga jox sa morom loxo ne ko baal maaq ndax teeke bi sam jéggal la na nanu jéggalante rek bàyyi moodu